beneen bi ñu ngi ci ñu dem suñu dernière partie euh, ñëw ci actualité actualité euh, Covid la mais spécificité bi ñu ciy waxee mooy les artistes gis nañ Covid Covid am euh, artistes yëpp sëngeem mu ñu gis ñu dégg un un très grand artiste sénégalais l'un des plus grands artistes muy Youssou Ndour mu waxoon au début que rien ne sera jamais plus comme avant. Euh, artistes yi lan nan lañ war a mun a dundee ci Covid parce que Covid bi installé ne xamuñu kañ lay dem. Mm. nan lañ mun a au lieu que gis nañ leen ñu marché kaas dañu war a tëgg te gis nañ partout dans le monde gars yi am nañ ay stratégie ñuy def concert virtuel sax gars yi def nañ ko. Mm. artistes sénégalais yi nan lañ war a mun a def pour dund ci Covid bi. Ah, mais feebar bi dikk lan lay bañ ñu ne. dajaloo dajaloo mais artiste li muy liggéey yëpp dajaloo la. Mm-hmm. bokk schéma bi ñu xamoon. kon lenn moo mun a nekk soit ñu di ko def di wàllante mu indi li muy indi ñuy dee. wala boog ñu ne ñun ay nit lañu yàlla daf ñu dimbale jox ñu am xel. ñu xool nan la ñuy fexee ba xel moomu ñu mettre à contribution continuer di def li ñuy def te duñu lor kenn. ni mën a nekkee yomb na parce que tey on est à l'heure du numérique. Euh, li nga xam ne li ñii dañu daan déplacé wu ñëw di ko seetaan mën nga leen ko yóbbul seen kër. ñu toog seen biir salle. kenn du jege kenn ba pare lañ war a gis ñu gis ko ba pare mën koo monétiser fexe ba artiste bi na mu daan joxee ñi ñi ticket ñuy dugg di ko fay mu am yeneen pexe yoo xam ni mën na koo def ba ku nekk sa kër fi nga toog di nga ko seetaan di nga fay par d'autres moyens mais à de ce moment problème bi dafay daal di régler mm-hmm. li muy ja li ja lii tax mu jafe mooy suñu jàppee ne lii lañ doon def te dañoo war a continuer di ko def kooku du xel du xalaat dañu war a on est sur une question précise qui est là li nga wax aussi am na solo parce que feebar bi ñëw na mais kenn loo kenn mënu la wax kañ lay dem. waaw loo xam ne lii xamoo kañ lay dem te yow nga war a dund te lii moom mooy sa métier yow yaay dawal xalaat réfléchir xool jumtukaay yi nga xam ne mi ngi fi nga seet nooy fexee ba ngay def sa métier di ci am li ciy am ñi nga xam ne ñi it yaa ngi leen doon bégal di leen jox li nga fexe bañ di ko jot. te loolu mën na nekk ndax exemple ñi ngi fi. waaw waaw gis nañ fi ay exemple gis nañ fi ay exemple 31 décembre bi ñu ñëpp topp nañ suñu télé. Uh-huh. seetaan seetaan ay concert yu neex uh-huh. Uh-huh. fi mu toll nii am na ñoo xam ne ñi whatsapp bi sax dañ ciy def seen i concert man gis naa ko am na ñoo xam ne ñi euh, chaque samedi dañuy yónnee liens yi nga am noo def Euh, wàccoo ak benn fay bu ndaw. Mhm. daal di toog seetaan li ngay seetaan bu fekkee ne sa artiste préféré la. Mhm. donc yooyu yëpp lu mun nekk la. Euh, lu mun nekk la mais est-ce que yéen tamit au niveau de euh, du théâtre national est-ce que aussi loolu mun ngeen ko xalaat ngeen ko pour liggéey pro proposer sénégalais yi ay spectacle à partir d'ici. on n'a pas le xam nga tey jii. da ngeen fekk ñu nekk ci liggéeyu rénovation di def. Mhm. mais suñu paree. que ñu lever mesure yi wala ñu bañ ko lever ñun am nañ suñu benn stratégie boo xam ne bii li ñu fiy def dinañ fexe di ko partage ak Sénégalais yi. Mm. parce que lañuy bañ rek mooy ñin ñi ñëw fi waaye kenn terewul nga def li ngay def fii sur scène xool jumtukaay yu bees yi fexe noo ko yóbbulee Sénégalais yi ku nekk toog sa kër di ko seetaan. Mm. Mm. boobaa am na programme boo xam ne bii ñu ngi ci dinañ ko def fii filmer ko di ko yónnee ñi ñi di ko seetaan parce que ba Europe da ngay gis ne ñoom it sax. dugg nañ ci loolu. Mhm. man am na proposition boo xam ne bii def nañ ma ko mooy benn théâtre boo xam ne mi ngi Paris ne ñoom mën nañu di yónnee seen i image ndax lu mel nii la ñuy def waaye ma ne bu fekkente ne ñoom mën nañu yónnee suñu seen image jógee Paris ba fii. waaw tey ñu nit ñu def loolu jox ko suñu Sénégalais. jox ko Sénégalais yi yoon waaw. Mhm.